julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente boobu nga xam ni yàlla moo ko tànn yónni ko ci nit ñi ngir mu raxasal leen seeni xel ak seeni xol ba nga xamante ni kenn dootu leen nax di leen gëmloo ay xuraafaat loo xamante ne ni amul waaye tamit kadalika raxas seeni xol ba ñu am pas-pas bu wóor wéetal yàlla subhaanahu wa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 moo mën a defar kër yi defar koñ bi defar societé bi bi paase ñu jotoon a firi juróom-ñeenti mbir yoo xamante ni nii yàlla neena gaa yi am xel gaa yi xellu gaa yi gaaw a waaru di jàjju ñoom ñoo koy mbubboo waaye yàlla subhaanahu wa taala tagg leen wax ni ñooñu day wax ni seen kër ga gàcce ngaalaama fa ne ama uqbat daar seen kër rafet na fañ leen faye fañ leen faye baax na foofa la waaw yàlla daal di commencé na dugg ci ak mbaxam am mbir yu mu lim daan ni jannaatu adnin yadxuluunaha جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة leen faye jannaatul adnin nga xamante ne nii àjjana la joo xamante ne nii suñu fu duggee dañu fay sax waaye yàlla nee na li gën a ci mbir mi mooy ñoom ñi baaxul fii ci àdduna yow mi jikko jikko yi ma wax léegi nii jikko yi nga xamante ne nii moom lañu limoon bokk yow mi ko jikkoo boo ci nekkee ba génn àdduna ba yàlla fay la yàlla nee na du ma ca yem waaye wa man salaha min abaihim gaa yi nga xamante ne ni sax doon nañ jot góor góorlu ci famille bi ba dabuñu la yow waaye jaare nañ fa baax ndax leen seen baay daa baaxoon wala seen maam dafa baaxoon ñoom ñu ñëw dabuñu seen baay dabuñu seen maam waaye ñu ngi góorgóorlu nekk ci yoon wi yàlla nee na dina leen fay tamit ay ajjana ومن صلح من آبائهم وأزواجهم سيني سخنا كذلك لولا ورا الباخ أم صلو يو سو باخي جيكو يما فيلم سوكو مبوي يالله سبحانه وتعالى دفلي في فيال سي ويجر فيال سي سخنا واي يالله يمو كده وذرياتهم يالله دينا لين فيال بفيال سي دوم واي فيال سخ سي ست jannatu adnin yadxuluunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim yàlla nee na wal malaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab yàlla nee na buñ demee ba biir àjjana ba toog malaaka yi dañuy dugg rek ñii di servi ñii di leen wax wax ju neex ñii di leen wax salaamun aleykum salaamun aleykum bi sabartum yàlla jàmmi yàlla wàcc ci yéen salamun alaykum am ngeen jam salamun alaykum jàmm wër na leen peek na leen ndar kep na leen waye lan mo leen ko may bima sabartum ndax muñ gi ngeen muñoon ba ngeen nekké fa aduna allah akbar yalla subhanahu wa taala lol la wax ki nga xamanteni ni moom mooy euh, ni mom lay fayé gaay yi nga xamanteni ni ñom ñoo baax yalla daan ni fa ni'ma uquba daar ah waaye gàcc ngaalaama yàlla nee na fa ni'ma uquba daar kër gu mujj googu nga xamante ne nii ñun yàlla gërëm nañ ko kër googu rek moom moo jara liggéeyal fii ci àdduna mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala lii la limal gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ulul albaab jam waxoon ca commencement aaya ba daan ni innama yatadakkaru ulul albaab kon bu fekkee bëgg nga àjjana yow mbokk mi déglu bu fekkee bëgg nga yóbbaale say soxna ajjana yow mbokk mi may déglu bu fekkee bëgg nga yóbbaale say doom ajjana yow mbokk mi may déglu fexee la xam jikko yi ñu fi lim nga jéem ko mbubboo sa àdduna yàlla subhanahu wa taala la faye li nga xamante ne nii moom moo di ajjana ya gën a kawe yàlla bi mu limee jikko yu rafet yi jikko yu laab jikko yu tedd yi dafa am nag ñu indi mu ni walladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaqihi yàlla nee na waaye gis nga gaa yi nga xamante ne ni dañuy fecc kóllëre gaa yi nga xamante ni nii kóllëre gi dox sama diggante ak ñoom wala kóllëre gi dox diggante ak seen moroomi nit duñu ko sàmm walladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaqihi yàlla nee na wa yaqtauna ma amara allahu bihi an yuusal ba pare yemuñu ca la leen jokkuloo woon muy mbokk gi ñu koy dog di wax lu bon ci biir famille di jëf-jëf ju bon di ko wax ñaar ñu ànd ñu fexe ba tàqali leen yàlla ne na gaa yi nga xamante ni daal jikko yi lañ set la ñu yor ci biir famille ah yàlla day nee na ñooñu kër gu bon kër goo xamante ni nii ñun gërëmuñ ko ñun yàlla moom moo koy xaar te moom mooy fi nga xamante ne nii moom moo di safara yàlla wax ni walladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaaqihi wa yaqtauuna maa amara allahu bihi an yuusala xoolal wa yufsiduuna fi l ard waaye ca dañuy yàq ci kaw suuf dañuy yàq ci kaw suuf lan moo tax yàlla wax yàq ci kaw suuf wa yufsiduuna fi l ard te ñoom benn côté rek lañ nekke gis nga ak mbon baaxul ak mbon day law looloo waral ba nit buy jëf-jëf ju bon ñu war a téye loxoom wax ak moom moo tax yàlla ne wa yufsiduna fil ard parce que même bu fekkee faneen la ñu nekk la ñuy yàq du yem foofa la ñuy wax naan ay du yem ci bopp boroom mooy ak mbon du yem ci benn suuf tey jii ay nit bu ñu toogoon fii di yàq di wax loo xamante ni dafa sofaanoo ak diine suñu ci waxul bu yàggee ñeneen dugg ci moo tax yàlla subhaanahu wa taala ni muy taabire ni muy waxee dafa jar di bàyyi xel ñaata mbooloo ñoo nekk tey jii ci suñu réew ñaata mbooloo yoo xamante ne nii la woote du dëgg exemple ñu nekkoon ci barab bu ndaw waaye ñu ñàkk leen a wax dëgg ba mujj gi barab ba màgg mbir ma màgg mbir ma mujj ëpp ay loxo li ko waral moom mooy ñàkk wax te ñooñu ci suuf lañ nekkoon moo tax yàlla daal wa yusiduuna fil ard xoolal li ci yàlla teg ulaika lahumul laana yàlla nee na ñooñu rëbb naa leen ñii toog ak mbokk ñi nga xamanteni ni nii gi dox sama digënté ak ñom duñ ko matalé duñu julli duñu wor du nat azaka duñu dem makka dañu yaq ak mbokk yalla neena ñoñu sam rubb dal na seen kaw rubb na leen ulaika lahumul laana wa suu su'ud dar yalla neena ñoñu seen kër ga ñuy mujj safara kër gi nga xamanteni dama ko ngagne kër gi nga xamanteni ni kenn bëggu fa dem waye ñoom dinañ leen fa yobbu mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala ba mu waxee ca aaya bële ca kaw ba nga xamante ne nii moom laa tuddoon ci waxtaan wala weesu ni est-ce que ki xam dina yem ak ki xamul mu daan ni gaa yi xel lu ñoom ñooy topp sama njàngale ñooy topp samay ndigal bàyyi samay tere waaye nga xam ni doomu aadama ak àdduna li fi nekk bànneex yi ah xéewal yi alal bëgg kër bëgg am ay doom bëgg am ay oto yooyu yëpp bànneexi àdduna la moo tax yàlla bi mu waxee aaya ba mu jeex mu daan ne allahu yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir yàlla nee na moom moom wërsëgam te moo koy jox ku ko neex te it moo ko lay jox lu ko neex ñaari baat la nañ ci bàyyi xel yàlla nee na may jox ku ma neex wërsëg te ka joxit lu ma neex laa koy jox waaw allahu yabsutu rizqa liman yashaau ويقدر أها يلا مم أم ورسك ولله ما فوق السماء وتحتها له المال يعطي من يشاء ويمنع ويكر بنينا يلا دال موم لي نيك تي كاو سوف ييب موم لي نيك كاو اسمان موي بروم ورسك موي جوخ كوكو نيه موي خاج كوكو نيه يلا سبحانه وتعالى ني الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر خولل وفرحوا بالحياه الدنيا يال نينا غاي نيو توپ ادونا با ميو وفرحوا بالحياه الدنيا دانيو ووت علال ورونا دويلو دولو ني دادو موجي ايبل وفرحوا بالحياه الدنيا ني توپ بانيخي ادونا با دي ديف لي مالين تيري وفرحوا بالحياه الدنيا ني توپ ادونا باي ليك ريبا وفرحوا بالحياه الدنيا ني توپ بانيخو ادونا با دي سونغلو خامتيني ني من داما كو ارامل يالله سبحانه وتعالى نينا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يلا نينا أدنا حمغنا الله نعم ملتي الآخرة كم ني سبورتابل ملتي سبير بوس الله أكبر مبا بيك بو يرون نمو ملتي سبوس يلا نينا أدنا نون ملتي الآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يلا نينا أدنا كرو كرو بان نخلا كرو مبوسور كرو تياخان waye li fi nek ak lu muy xam nga nu mu mel ci ak àllaaxira yàlla nee na dafa mel ni nga yor benn objet bu ndaw ci sa biir poos noonu muy tuutee ci sa biir poos nga ne nangoo ŋàbb di dem adduna wër këpp noonu la mel ci àllaaxira kon lan moo tax yàlla indi fii aaya bi daf laa bëgg xiirtal ci jikko yële mu waxoon muy nëf jikko yi pour nga mbubbawoo ko adduna bañ laa këf nga sàmm sa ngor loo mar mar mar bu mu tax nga naan ci petit mi loolu la la yàlla subhaanahu wa taala bëgg wax moo ñëw ci suratu Ra'd di aaya 19 ba aaya 25 mu nekk ci aaya yi nga xamante ni dafay defar ab société dafay defar kër yi dafay defar li nga xamante ni moom moo di nit képp ku bëgg a defaru na ko déglu képp ku bëgg a baax na ko déglu te jéem koo jëfe la borom xam-xam ba waxoon rek nee na aaya yi daal mooy al muqawimatul asasiya lil xayaatil ijtimaaiya nee na bu ñu bëggee société bi baax il faut ñu delluwaat ci aaya yi yàlla nañu yàlla defal dégg a topp lépp lu fi jub nañ ko sante lu fi dëng ñu xam ni ci ñun la leeral moom moo ñu taxoon a jug di sant di gërëm ñi nekkoon ci technique bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.